del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information internet yi ñuy bàyyi xel saa su ne fii ci Feeling Dakar TV ñu ñëw ak yéen nag ci lu bees loo xamante ni daal dina ñeel dossier Sidiki Diabaté moom mu nga xamante ni daal dinañ koy teg loxo jamono ji liñ koy daal di toppee rek moom moo di violence conjugale ba tax nag ki nga xamante ni moom moo di yaayu Sidiki jabaate di euh, Fanta Sakho moom nag daal nañ koy teg loxo ni ki euh, tey bu ñu sukkandiku euh, ci média locaux yi nga xamante ni ñu ngi foofu ca Mali. moom nag liñ koy toppee rek moom moo di complicité d'avortement ndax nag kii di Fanta Sakho moom lee nga xamante ni moom mooy yaayu Sidiki jabaate moom da doon poussé ki nga xamante ni moom moo di Mamacita ngir mu avorté moom nag avorté loo na ko ay yoon yu bëri yoo xamante ne ni Mamacita dafa ëmboon te avortement boobu àndu ci woon benn yoon looloo waral nag yoon daal di koy teg loxo ba jamono ji mu ngi en garde à vue